سنة القرى وإني yàlla nag dana waral kanam gu leer nag moom ndaxte benn borom xam-xam mag nee na gis naa Malick muy naafila guddi ma xëy gis ak leer gu ma gisul woon ci kanamam nuuruhum yas'aa bayna aydiihim wa bi aymaanihim yonente sax wax na ko ci xadiis Abi Hurayra bu wér من إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء آه. سما خير يوم القيامة من دي خامي موي سين كانام اك سين تيري نياب داي لير كوم فاس فاس وو فاس وو غا خامي نينت تانكي داي ويخ نون لا سين تيري ميل اك فاس ويغا خامي كانام دي في دا لير ناني نيا تامي نون لا سين كانام دي ميل يوم القيامة نون لاي خامي سما خيت موتا ابو هريره داني كومانتي يين سي جابي مي غودال مي غودال ام جابام na koy def loolu nag masabam la woon moom bu daa jàpp day jàpp ba mu as ci daanaka ci mbagg yi tànk yi mu as ci oom yi Abu Hurayra moom daa départ moom moom Abu Sarr soreewul bañ na ko moom lu mel ni oto bi daa yor rek borom saxaaba yi naan piip toppali may ma jàll amu doon jot parce que jàkk ji la dëkkoon saxaaba yi bu xorom la woon solo na ci xadis lu toll cinq mille cinq cent cinq mille trois cent cent aussi xadis solo na ko waaw ku yéeme la woon ku yàlla dimbali woon ndax daa am benn bis yonente bi ni kan mooy indi yëkkati mbam ma ñaanal ko mu yëkkati mbam yonte bi ñaanal ko nee na booba ba tey nag mënatuma fàtte marché bi sax ma ci toll damay sakk sama nopp ndax lu ma lu ma romb dama koy mokkal na waa ji daa wax Abu Rayya yaakaar naa la moom wala libanais dadaa weddi xadis yonente bi naan Abu Hurayra amul woon folklore la rek li ñu waxoon la rek phénomène la rek amul woon waaye sama benn oustaz bi doon jàng ku wax jamaanu na na ma Abu Rayya bi muy faatu doon wax naan ah ah Abu Hurayra nga xam ne kenn du ñoom ñu jara moytu lañ yonente bi nee na bu leen saaga samay saxaaba waaye dinaa ci yàlla ne kenn ci yéen joxe woon lu toll ci oxoti du toll kenn du toll sax ba koy